internetu Dakar Actu équipe Dakar Actu Mbour mu ngi fi ci sortie à péage bu ñu gisngen Kër Ball gis ngeen li fi xew accident bi nga xamantene doon nañ ko wax ci suñu xabar yi wessu ci lañu dëkk ak yeen en image gis ngeen fi ñu taxaw ni fi la bus bi také gis ngeen mo indi yaqku yaqku yi yépp ñu bayiléen ak image yi ngeen jugeel seen bop waa nekk deuxième chauffeur bi. Euh, mën nga expliquer affaire bi nu mu demee. waaw mën naa si affaire lu mu demee waaw. expliquer. waaw damaa ñëw bés abiyaas bi ma fay ba pare bala waa ji du may delloo weccer rek fekk naa oto bi taxi ginnaaw quoi waaw affaire bi ni la demee quoi bala chauffeur yi ñëw rek fekk na oto bi tax ba mu jeex kenn mënu si dara. waaw loolu mais loolu mais loolu man loolu laa mën a wax pour waaw kii bi amoo woon sentir woon dara yóbbu ko woon ci ay mécanicien fan yi pour xool ndax affaire bi am na problème wala. noonu non affaire moom amul benn problème waaw affaire moom amul benn problème dogal yàlla rek damaa ñëw taxaw pour fay rek oto bi tax si ginnaaw waaw loolu kese dong la. boobu yow yaa ko doon dawal. noonu boobu titulaire bi moo doon dawal waaw waaw. ngeen doon dem. jaww bi jaww bi laa doon dem ko bis bi ñaata place la. bi bi soixante-douze places waaw. métti na de ah. non métti na trop métti na trop métti moom na trop. billaay walaay ay saa dañoo sonn. billaay dañoo sonn trop. dépend nañ tagaat dara mais ñoo nañ si PA bi si gese bi ba paa bi fay jox femme bi cinq delloo ko deux mille pare si la oto bi daal di fay ñu taal taal taakul ma wàccal nga xool si ginnaaw oto bi ma dem xool oto bi commencé saxaar di tàkk si laa ne ko oto baa ngi tàkk si laa daw dugg si biir oto bi. wax client yi ñu wàcc oto oto mu ngi saxaar si la client proto daal di wàcc ñoom waa gise bi andi sen pompe gaz lu mat ay sept pompe gaz man si laa pompe pompe sama loxo yi metti mais teewul affaire bi ëpp ñu doole si la mujj woo sappoor mais avant sappoor ñëw boobu fekk na oto bi parce que jeex na tàkk ba mel nii mu mel mais après tey suba bii lañ ko lonko andi ko fii mais fi lañ fanaan nag mais client yi delluwaat nañ Dakar seen bagage yëpp ya yàqu

xam nga beneen problème lay doon mais lii la yàlla dogal daal dañuy sant yàlla daal xam ni daa fa nekk lu gën yàlla ñu daaxal suñu ay daaxal ñu suñu musiba mu fekk lu gën si ñun daal. waaw dañuy wax ne bus yi fan yi ci ci tëli bi euh, bëri na lu ñuy nemmeeku ay waxu bus euh, yéen chauffeur biis yi lan la dañu naan ay xale ko yor ñii naan bus dañuy def lu leen neex dañuy doublé looy wax ci mën daal damaa jàpp lépp daal ndogal yàlla la lu am rek yàlla la ndax man mii li may nekk xale nekk chauffeur yàlla moom mooy sutura di ma dimbali maa ngi dem di ñëw te amu benn problème xale bu ndaw laa te maa ngi dem maa ngi ñëw te li may dawal dama koy teg si yoon lu ma sama xel mooy duma ko def mais xale laa teewul tamit maa ngi def leneen li yoon santaane mais lu am daal man damaa jàpp ndogal la quoi mais nekkul ne ay dàqante la ay affaire njëkkante affaire man jàpp ma loolu man damaa jàpp nit ñi rek yàlla la. kon bagage yëpp a lakk waaye nit daal deewu ci. non nit ñi moom ñëpp bi ma duggee si biir ne wàcc na oto baa ngi tàkk ñoom ñëpp danoo daw wàcc. mais bagage yi moom nañ ko yeboon te Dakar moom benn esegu si lépp yàqu lépp lépp a yàqu lépp oto bi tamit matériel lépp yàqu ñun daal ni leen si am suñu yére suñu lépp daal laq na ñun daal nii leen daal si tool quoi moo tax. fii ñu taxaw nii moom mooy nag sorti Kër Balla Lo sànq fee péage bi la foofu ngay fayee soog a ñëw ci sortie bi gi nga sorti bi nii maanaam Carrefour la fii ma jàkkaarlool nii moom ngay duggee pour dem mbuur à ma gauche nii boo continuer hôtel bu bees bi nga xamante ni def nañ ko muy pont Sarène moom ngay duggee pour dem gis nga tëli bi nii ñu ngi koy defar pour mu dem nii gis nga ko nii ñu oto yi génnee nii mooy dakaar foofu la péage bi nekk sama ginnaaw boo continuer mooy péage bi dafa war a continuer pour dem Kaolack donc euh, fii la mbir mi amee oto bi fële la takkee mais dafa baare woon affaire bi ñu diri ko gis nga fiñ ko fiñ ko teg mu mel ni Euh, problème mu transport au Sénégal donte am nañu péage mais ba léegi ay problème am parce que boo gisee oto yi nu ñuy yebee boo gisee oto yi nu ñuy dawee da ngay gis péage bi oto daw ba mbëkk barrière yi donc je pense que au delà de nos comportements aussi mbir mi vraiment y a un il y a un réel réel réel problème et que autorités yi war nañ gën a saytu euh, profondément euh, lan la te yaakaar naa ne aussi ñi ñu jokkool ñëpp xamal la ñu ne transport bi il faut ñu xoolaat ko xoolal taxawaayu homme de tenue yi xoolaat jikko nit ñi sanction yi aussi gën a sévère parce que problème yi am oto dalay romb sax nga am impression ne kii rombul kenn ci kaw tëli bi ndax ni mu yebee ndax nu muy doxee ndax lépp donc je pense que vraiment war nañ mën a gën a gestu askan bi surtout ci wàllu transport bi nga xamante ne nii mu ngi yàq bagage doomu aadama yi mu ngi faat doomu aadama yi donc loolu je pense que autorités yi war nañ ci gën a penché wu